gën ñoo gàtt ñoo tawféexi bi. bis bii nga xamante ni sii moom la sëriñ Matar Diène kuréel social di amal muy ibité juma ak euh, tari alxuraan bi nga xamante ni sii daara donga yi nga xam ne ñoo nekk ci daal di ko def monsieur le ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey lan moo teewaay ci kër sëriñ. waaw jërëjëf gannaaw bu ñu sant yàlla jëli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal xalif général de Mouride sëriñ Mountakha mu yàgg fi te wér di ñaanal sëriñ Sidi Abdou sama sëriñ mu yàgg fi te wér ak njaboot sëriñ Tuubaa gépp dañu ñëwoon fii tey ci kër Serigne Makhtar Diène ci jumaa ji nga xam ne ubbi moom la doon ubbi tey doon ñëwoon nañ fi di xool gis liggéey bi ni mu demee ah ku ñëw tey jii ñu doon julli jumaa ji waaye Serigne Makhtar yemut ci loolu ku xool daara alxuraan ji mu boole koon ko ak tarim alxuraan jaara ji nga xam ne ah, yi bëriwul yu ni mel ci réew mi ci daara tànneef la ci njàng njàngale waaye ci njàngaleem qualité waaye ci condition yi nga xam ne moom la xale yi nekkee loolu da cee mooy li ci am solo ndax nit bala ngaa sol ci moom dara ndab day set nga door a sol ci moom dara xale yi duñu xiif duñu mar du ñu tilim ci cet la ñuy nekk looloo tax ñu mën a am condition yi dafay am solo lool ci njàng mi ak njàng njàngale ween wi ni jamono demee muy def mu di fi jàngale jàngale yoo xam ne produit bu fi jógee da nga xam sa bopp da nga xam li nga doon dana lay tarxee yar la ba nga wéy a yàq ci beneen domaine loolu mooy li ci ëpp solo mu def nag ci quartier bi jumaa joo xam ne juni mel yombul gis nga ku visité jumaa ji xool ni mu ko liggéeye xool jullikaayub jigéen ñi sax ni mu ko doxalee nga xam ne saalikin wa zalika ji nga xam ne moom la sun borom di wax moom mataar mi ngi koy sàmm muy nit ku baax nag ku am diine nit dib taalibe di ko bari xam-xam di def liggéey lu bare bari ci réew mi di taxawu waa réew mi ci mag ñi ak ndaw ñi di sol ci xale yi xam-xam boo xam ne bu am solo la ndax daaraam ji bokk na ci daar yiñ gën a ràññi ci réew mi ci taxawaay bu rafet ak sell gi sel la looloo taxoon nag ku ku def lu mel nii ci am réew waa réew mépp war nañ laa sant waaye ku def lu mel nii ci dëkk waa dëkk bépp war nañoo taxaw maanaam sant la ci ñaanal la yàlla may ko kàttan ba mu gën koo man looloo tax defe naa ne dëkk bi ñëpp koo gis tey ñëw na fi ku mën a ñëw ñëw na ku munta ñëw yéene nga looloo taxoon ci turu sama diggante ak moom en tant que xarit ma ñëw seet sa ko waaye ci turu bi municipal bi ma ànd ak association yi ak conseil yëpp ñëw fii tey ak bokk yi ak xarit yi ñëw ak Moussa Thioune ñoom ñi ñëw ñu taxawle ko bis bi ànd koog moom ba jeex ñu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may kattan di leen sant yéen ñi nga xam ne loo yéenay tasaare te tasaare moom bi ci ëpp solo mooy tasaare lu rafet ak lu baax lii ñëpp jot ci.